asalaamaaleykum mbokki internet yu Dakar Instant encore une fois bienvenue ci seen chaîne de télévision en ligne bi nga xamante moi moo leen di les informations à l'instant actuellement may wax ak yéen ñu ngi taxawee fi nga moi ne moo beaucoup marché bu Kër euh, di bokk ci benn localité yi nga xamante ne faire faree ci banlieue bi jamono ji ñuy waxee ak yéen euh, ki nga xamante ne moo di njiitu di maître Abdoulaye Wade déparé na fi nga xamante ne moo France Facile yéene jëm si fii ci Sénégal jaaree ko aéroport international Blaise Diagne bu Diass euh, jamono yi nag ñu fas yéene ñëw fi nga xamante ne moo comme ko jël li nga xamante d'abord moy impression population bi damay bayyi seigne bi mu fi dajel mom mu daal nuyu mbok internet yu Dakar instant seigne bi maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay je m'appelle Babacar sar maa dik dëkk fi Kër Massar quoi Babacar Sarr ñu gis ne jamono ji Sénégal ñu ngi jëm ci ay élection daanaka mën nañ ne li ci des ay fan la ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi woon di Ablaye wadd tey mu ngi fas yéene dugg si fi nga xamante ne moom moo di Sénégal jóge Paris ñu bëggoon xam loolu sa xalaat d'abord balaa ñoo gën a xuusandi ci waxtaan waaw man li may wax mooy wax dëgg yàlla maître Ablaye Wade kilifa la quoi te li mu waroon def si réew mi jot na ko def ba pare ñëpp si bët mais donc actuellement mu toll nii ak âge bi maam il devait exemple te dafa waroon gis luy taal dëkk bi mu au moins mu jóg mu wax ci ndax moom moo mën a fay mais du moom moo war a wax luy taal dëkk bi man loolu moo si sama xalaat quoi parce que vraiment li mu waroon prouvé il a prouvé dafa waroon def ni Abdou Diouf def joxe le bon exemple dem toog mu bañ a kenn. yaa ngi parce que lii genre fayonto la quoi parce que doomam def nañ ko lu ko métti moo tax il faut mu mun c'est pas ça quoi man de li ma gis moom mooy vraiment que ni adduna bi toll na fa xamante ni lu ñu jëmal kanam la ñu soxla quoi. mais mais pas ne pas jëmal ginnaaw surtout moom mi c'est un homme démocrate donc y woote un homme un homme de ce genre il doit se jouer de ses facultés mentales et ses facultés morales mu donner pour exemple maanaam Paul, réew mi lan la soxla mu ñëw mu mais pas di wax loo xamante fatal dafa bi quoi mon loolu moo sama quoi. Ah, kon yow japp nga ne li nga xamantene modi déclaration bi mu jot def ak ñew gi mi ñew ci Sénégal fi ni ne nii day yee fitna. daf ma métti te daf day yee fitna en tout sens vraiment daf ma métti quoi. mais kon yow reporter bi mu war a élection yow lan nga ci wax reporter bi mu ne dañ ko wara reporter élection. non man d' ma ci d' ma ci parce que fi actuellement fi affaire bi toll nii ak milliards yi ñuy dépensé pour les bulletins de vote ak les urnes ak yoyu vraiment c'est pas normal que ñu naan duñ koy reporter encore on va perdre encore 2 milliards et on va repartir en arrière actuellement lu ñu jëmal actuellement tous les opposants ils sont d'accord Quelle élection donc il n'est pas question que ñu naan élection yi dañu de ci gannaaw donc vraiment l'humour de de ans. il a plus de 90 ans dem toog ci plianam ñu koy ñaanal mu ñaanal pour réew ci mais pas muy ñëw perturber

actuellement actuellement ñun ñu ngi ci développement quoi donc tey gëmuma ma ni que ne paa bi daañu ko tertu man ci crois pas. Sagar Diaw laa tudd Kër Massar marché Unité 4. waaw Sagar Diaw ginnaaw présentation bi bëggoon nañu xam euh, jamono ji dégg nga ne ki nga xamante ne moo fi nekkoon jiitu réew mi di maître Abdoulaye Wade mu ngi fas yéene ñëw fi nga xamante ne moo di Sénégal mu jëm mu jëm ci li nga xamante ne ay élection la 2019 euh, bi. ñu bëggoon a xam rek déclaration bi nga xamante ne jot na ko def jëme ci élection ñu bëggoon xam lan moo ci sa xalaat. sama xalaat moom mooy rek bu ñëwee ñu teeru ko taral ko parce que Ablaye Wade jaar na fi te lu rafet jot a jëf moom lañ xam ci moom te it bëgg nañ ko ñu xam ne daal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xañ ñaar Sénégal ndam li moom fi lay des affaire yi moom pour man jërul xëccoo jërul ñuyoo jërul ŋaayoo parce que Sénégal benn bopp lan ndam demul dem dikkut lépp fii lay xewee doomu Sénégal yi ñoo ko bokk ñu rafetal ko rek bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo te xam ne yàlla mooy maye te yàlla ka muy may programme na ko ba pare te yàlla kenn mënu ko coow moom ñu gëm yàlla daal te rafetal lépp. gannaaw gëm yàlla bi ki nga xamante ne moo fi nekkoon jiitu réew mi Ablaye Wade jot na fi jaar jot na fi def li nga xamante ne moo di ñaari mandat yu am solo ñu bëggoon a xam ñëwam gi nga xamante ne tey ji mu ngi koy ñëw Sénégal ndax ci déclaration bi bokk nañ ci li liñ ci gën a mën a jàpp mooy élection yim ne dafa jàpp ne dañ ko war a fomm loolu moom man moom Ablaye wadd ku ko bëgg laa ndax ragal féete day xañ a macha allah mais pour man loolu góor gi warul wax loolu parce que pour man daal loolu lépp loo xam ne boo ko defee day yee na pour man loolu mag waru ko jiite waaw man daal su ma bu ma sañoon ñu jël lépp rek teg ko ci loxo yàlla rafetal lépp daal te xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Ablaye Wade mooy Macky Sall Macky Sall mooy Ablaye Wade parce que démb ak tey ay ndaw waaye fekk nañ lu bari. man maa ngi tudd Dabaloo waa commerçante la yow. ñu ngi fii ci marché unité 4 bi. waa soxna si Sénégal jamono ji ñëpp xam nañ ñu ngi ci ay élection daanaka desatul ay fan ngir ñu far ki nga xamante ne mooy suñu njiitu réew jamono ji nag euh, li nga xamante ne bokk na li gën a fës ci actualité mu di ñëw ki nga xamante ne moo di njiitu réew mu woon di maître Abdoulaye Wade ñu xam lan moo ci sa waaw maa ngi d'abord dama leen di nuyu di leen sant waaw ndaxte ñëw ba fii taamu ma pour ma wax dama ciy sawar ñëw maître Abdoulaye Wade fii nag dañ ciy kontaan rek ndax xam am na lu mu gàtt gàtt xam nañ ñi nekkoon na fi président te am na loo xam ne defoon na ko fi tamit kon buy ñëw fii kon ñu dañ cee war a kontaan waaw ndax Abdoulaye Wade tamit nekkoon na koo xam ne référence la mag la moo xamante ne amoon na yërmande ci dëkk bi waaw dañuy kontaan daal ci ñëwam fii waaw. waaw tey jii dégg nga li nga xamante ne mooy déclaration bi mu def ba bokk na ci point bi nga xam ne moom la ci gën a fëste moom lañ ci a mën moo di yi mu ne dañ ko war a fomm. pour ñu fomm ko. fomm pour lan. non fomm parce que tey ji jamono ji gis na ne am na ci ñoo xamante ne euh, dañ leen a condamné maanaam ce sont des condamnés ñi nga xamante ne tey dañ leen a invalidé bokk ñu ci jongante bi te waroon nañ ci mën a bokk bi ci gën a fës bokk ci ki nga xamante ne moo di doomam di Karim may Wade man moom gisuma ni dañoo war a fomm élection yi li ma gis daal mooy ñu bàyyi élection yi ñu waxtaan waxtaanu biir nekk toog xam ni Sénégal gi ñun ñoo ko moom bu jàmm amee ñun ñëpp ay am jàmm bu safaan amee tamit ñun ñoo ciy ëppale ñu def élection rek daal def Sénégal jàmm ji ñu ñëpp xamee waaw ndax réewum teraanga moom jàmm rek moo fi wara mën a am te yaakaar naa ni sax élection yi jàmm rek mooy am waaw. naka nga jàpp ne tey ji war nañ koo teertoo ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi woon. daa di génn rek sénégalais yëpp génn delloo mbuum ca mboy mboy ba nag ñu teraanga lañ xam ñu teral ko tagal ko waaw xam ni président la woon te def na fi dara waaw. ay ci ñu continuer li nga xamante ne moom moo di avis sénégalais ñu ngi toujours fi nga xamante ne moo di Kër Massar ma bàyyi ki nga xamante ne moo di délégué marché bu unité 4 mu daal di nuyoo ak mbokki internet yu Dakar instant sëñ bi maa ngi lay nuyu. man maa ngi tudd Khadim Thioune délégué marché unité 4. représentant membre champ Degas gaz kermassar tay ji nak jeudi bi ñu fassiyene yéene ki nga xamantene mo fi nekkon euh, njitu réew mi di maître Abdoulaye Wade ñu bëggon ci xam sa xalaat. waaw ginnaaw bañu santé yalla bu bahabah, baax di ñaan suñu borom it na fi def jamm ci réew mi élection yi don élection yo xamni yenen ak yenen day ñew rombu mu am ci jamm ñun ñepp ñu défé ko ak jamm waaw loolu suñu xalaat tax ko cee bari ndax man damay wax ne ñun dañu sonn ci politique politicienne bi ñu nekkee mooy toujours c'est le même chaîne bu ñuy tourner autour des sénégalais mu doon chaîne boo xam ne it ñun ci suñu wàllu bopp dañuy buñ ko bëggee topp sax dañuy réer ci biir ba tax mu doon loo xam ne xalaat daanaka du faral di ci concentré wu ndax damay gis ni benn instant li leen politique gu Sénégal rek waaye du ngir askanu Sénégal moo tax ba ñun daanaka seeni yëngu-yëngu ñun lu ci bari dañ ciy daal di neutre duñ ci daal faral di sori quand même citoyen la man noonu laa ko jàppee comme ñëpp am na droit parce que vie vie am mi ngi opté def politique kon du ma ne da cee màgget wala waratu ko def wala déet non dafa am liberté wu am sañ-sañam pour def ko ci nu ko neexee kon loolu. kenn du ko xañ kenn moo tax man du ma ñaawlu mukk ak ñëwam sénégalais la comme ñëpp jiite woon na réew mi objectif am xëy na nekkagul ci bàyyi politique kon dañuy jàpp ni ñëw gim ñëw war na koo ñëw nañ ko bàyyi mu def ni mu bëgg a defee li ko am may du am may ko ko ñu bàyyi kook moom mu defal amal comme ñëpp ba keroog fu mu yem mais daal bu ñu sañoon fitna it du ci am dara du ci am. lépp nekk bu dee marche lay def caravane lay def lépp nekk pacifique benn coow bañ ci am benn problème bañ ci am kenn ku nekk continuer nekk ci activité am parce sénégalit du élection yi fi lay yam dañuy organiser waat yeneen ak yeneen kon du ñu xañ kenn ay droit am dañu bàyyi kenn ku ne mu defee ni nga xam ni noonu la bëgg a defee ci kaw mu dëppoog yoon nag waaw loolu daal toujours ñu ngi koy ñaan waaw. waaw ginnaaw bi nga xamante ne njiitu réew mi waaj na pour ñëw fii nii ci Sénégal maanaam maître Abdoulaye waat njiitu réew mi woon sax laay wax ginnaaw bi nga xamante ne jàpp na yoon ngir ñëw fii nii ci Sénégal def na ab déclaration boo xamante ne jamono ji mën naa ne bokk na ci li gën a fës ci actualité ñu gis ne mu ngi naan euh, élection yi ñu jëgmal dañ ko war a reporter ndax c'est pas très bien organisé est-ce que jàppoo ne loolu tey jii mën na yee fitna wala lan ci xalaat par rapport ak loolu wax. waaw euh, loolu ñun duñ ko mën a dëggal duñ ko mën a weddi. ndax xam nga lu tax mooy Sénégal kenn ku ne camp ba nga far la loolu mooy suñu problème mooy tey ji am na ñoo xam ni ñi ngi woon ci biir opposition bi di wax ni élection yi waaw waa ji waru ko organiser warul def nii alafin bi ñu leen rëkkalee dem nañ àndi ak Macky Sall te dañ ñu doon wax ni li jaarul yoon kon ñun du ñu xam ku ñuy gëm te it euh, damay wax ni mënoo xam lépp parce que ñoom ñi nekk ci système boobu di ko dundu it ñoo mën a wax li ci ne ñoom ñii dañu naa leer na ñii ni leerul kon ñun askan wi pour ñu àtte leen problème la bu tayee ñu ni kii def na kee deful kon ñun askan wi toujours dañ ñuy bàyyi ñu réer ci biir moo tax toujours pour ñun ñu juger leen du yomb damay wax ni transparent bi nga xam ne moo war a am ba sénégalais lam daab di ci gis boppam ba léegi amaguñ ko kon ak ñëwam ay waxam mu dañu war a boycotté doo ko mën a dindi doo man ne buñ boycotté doo man ne nañ boycotté parce que des fois damay wax ni askan wi dañuy pare pour baleen ñoom ci loolu donte ndax lan duñ ci am duñ ci am maanaam dëgg ñun ndax fi ne tey foo ci féete ñu wutal la foo dëkk boo ci waxee neneen ñu wut nuñ la def te damay wax ni Sénégal li fi gën a métti mooy soo waxee dëgg ba dem ci kaso gi doo fa jóg. soo waxkatu dëgg yi ñu ngi ci biir kaso bi amuñu opportunité wu génn. bi nga noonu parce que la koy permettre mu génn mënuñu ko am ñun bu dee ñun ci cadre sénégalais lam daay laay waxee loolu mais bu dee ñoom seen niveau vie politique bi moom ñoom moom seen système de politique la politicienne dañ koy bàyyi ak ñoom waaw ñun duñ ci sori. waa bëggoon nañu xam nag lan ngay bàyyee comme message ñi nga xamante ne ñu ngi lay teewlu à travers Dakar Instant. waaw ginnaaw bu ma delluwaat rafetlu. lii ngeen def ndax localité yu mel nii dafa làqu te it euh, jàpp naa ne ay citoyen lañ ci réew mi te it li ci ñëpp am lañ ci am kon yell na bu ñu amee yenn médias yi ñuy dox ba ñëw ci yenn gox yi di ñu nemmeeku dañ koy rafetlu kon dañuy jàpp ni boole nañ ñu ci te it euh, déglu koo xam ne fayu fayoo ko fayu la nga xam ne droit la mu am na cëram ci réew mi nga jox ko ko loolu lu jafe la kon ñu ngi rafetlu loolu di lancer waat un appel it que ni nañu fexe ba jàmm rek am ci réew mi ndax ñun ay jullit lañu te jaamu yàlla mooy li ñu war li ñuy xëccoo àddina la amul solo dañuy dem ba ko fi yàgg-yàgg ñeneen ñëw occuper ko ba ilaa yow mi kon ñi ngi woote daal ci camp yëpp nag du opposition bi la parti pouvoir la ñëpp. kenn ku ci nekk daal ñi ngi sàkku ci moom ñu doxal jàmm def jàmm ba ñu indi fitna ci réew mi te xam ni ku fi suñ borom teg nga toog fi ku jeexalit jóge fi waaw loolu daal bokkoon na ci li nga xam ni maa ngi koy lancé sénégalais yëpp pour ñu bàyyi ko xel daal jërë ngeen jërëjëf sëñ Xaadim ci li nga xamante bi comme ni mu ko waxee contenu bu baax comme ni nga ci euh, a isolé wu li nga xamante moom moo di interview bi par rapport ak euh, impression yi nga xamante moom lañ doon jël ci sénégalais yi ngir li nga xamante moom la ñu dëgmal mu di élection